ci màggal gi nga xam ne dañ ko dëgmal incha allah te di ko màggalal sunu waajur yaakaar ci Ahmadu Bamba muy maam Jaara màggal gi nag ni ngeen ko xamee euh, bis bu nekk rek fàttaliku fàttaliku day ñaaw walla mu rafet moom nag euh, yàlla daa def dundam guddul waaye léppam da koo jeexal ci yàlla da ko ko yàlla dëggale diggale ci anam yëpp ak wàll yëpp da koo matale loolu yàlla ko fay yàlla faye ko li nga xam ne du mbo mbedd moo dem fekk fa du dëkk boo dem fekk fa muy doon waajur sëriñ Tuubaa ñaareel ba muy jigéen am bis boo xam ne yaakaar naa góor ñi ko am sax bariwul kon liggéeyal yàlla rek am solo liggéeyal yàlla rek ci la lépp nekk ci la kon bu màggalam ñëwee ñuy màggal bisam yaakaar naa ne képp koo xam ne bëgg nga réew mi bokk nga ci réew mi wala bëgg nga lu baax ak foo mën di bokk danga war a ànd ci màggal googee da nga war a ànd ci ànd ci ñaan googee ndax lépp ci yàlla la jóge te lépp ci yàlla lay dellu nu bind mënu fi indi waaye dañuy dellu bis ci moom mu àttan kon nag lépp lu soxal yàlla rek ci leen war a nekk guddi ci leen war a nekk bëccëg ni ko sëñ bi digle ni ko borom bis bi nekkee woon ba yàlla jële ko fi kon bu bisam ñëwee eh, ngeen taxaw ci taxawaay bi ngeen fi bi ngeen fi taxaw muy tàmbalee ko ca daje yu njëkk ya CLD ba ak CDD ba ak CRD bi nga defoon kawlax ak bii nga xam ne ni nga ko waxee dañ koo def ngir xayma eh, liggéey bi nga xam ne defagun nañ ko ak bi nga xam ne defaguñ ko ngir lépp bu dajee dëppook li nga xam ni moonu tax di sonn muy bis bii aw yoon bis bii doon noflaay ci ñëpp ñi nga xam ne teew nañ fi ak waa réew mi eh, sëñ bi nag mi ngi rafetlu bu baax seen eh, taxawaay ak seen yitte te loolu man mat naa ji seere ndax noo ko fi teewal noo ko fi nekkal te eh, tey ji defe naa mooy daje bi nga xam ne moo mujj ci daje yi li ci des lépp jëf la ak seetlu ak liggéey ak taxaw ak ak jubbanti waaye li ci amoon solo nag lépp nun moo di liñ seere daal moo di li nga xam ne jàll na te waroon koo def service yi war koo def ci seen njiit lenn lu ci ne bañ ca àggee nanu ko bëggee nun defe nañ ko noonu buñ bu fi bu fi yokkuwut itam yi nga xam ne defaguñ ko itam am nañ ci yaakaar ndax xam nañ ni ñi leen fi jiitu li ñu def ñoom ñu def lu ko yées ndax kenn ku ne war ngaa am jom kenn ku ne war ngaa am ngor ba sab nawle du du la ëpp yiw du la ëpp lu baax du la mën ci dara euh, ba tax wàll yëpp ni nga ko waxee daanaka du ma ci dellu si ci wàllu euh, am na yoo xam seetlu naa ko rek faaw ma wax ko ndax jotuñ ko woon wax ci daje bi mooy wàllu sécurité bi euh, nuy sant bu baax di gërëm ci xalaat bu bees bi nga xam ne am nañ ko ren te commandant gendarmerie bi am ko moo di sëriñ bi xam ngeen ne yilifut poroxaan rek dafa yilif poroxaan mooy sëñ Touba te sëñ waa fu muy dem fu ne gis ngeen ni fu mbooloo mi daje tey ji mën naa wax ne bis yi mu fi nekk yépp tey ji la mbooloo mi gën a néew te àdduna fu ñuy daje fu ne rek dañoo aaje taxawu leen nos leen ba nga xam ne loraange du fa am leen fa dajale rek moom moom ñu am ko bi bi ñëwee ba léegi commandant gendarmerie ren am na xalaatu wul fukki fukki gendarme ak ñeent ñoo xam ne bu ñuy yendoo ci sëriñ ba ñi fanaan fa keroog sax maa ngi koy tooñ ne ko man de sama mag damaa gën a wér ëpp ma sañ-sañ ëpp ma doole comme nag man awmu ci yooyu dara te moom am na ko moo tax ma ñaani gendarmerie ñu yabal fi ñoo xam ne dañuy wattu dañuy wattu kër gi di la wattu mu sant ji bu baax ne ma daal wax dëgg yàlla lool moom xalaat bu rafet la waxuma la sax wattu ma man waaye njaboot gi ay gone da cee bari te gone fu ñu daje rek njuumte dafay am te taxawu nañ ci taxawaay bu rafet boo xam ne boobu sub tey bii benn taxawaay gënu koo rafet kon nag lool noo ngi ciy sant bu baax gendarmerie GMI nag moom fekkoon na moom lu ko jiitu fu sëñ bi nekk ñu ànd ak moom waaye lii nag man màggal Porokhane laa sañee wax moom lañ ma waxloo moom laa yor moom laa mën a seede itam xalaat bu rafet la boo xam ni gendarmerie am na ko noo koy rafet lu bu baax di la ko seedeel yow itam yeneen liggéey yi ci des itam nag koy nekk bu accès incha allah yaakaar nañ ni noonu gendarmerie def rek la def. doyen danaa ci yokkutu daanaka waxaloon nga ma ko jarul ma di ci ñëwati mooy nun dafa am nu nu yàlla binde nu yàlla binde moo di eh, Sénégal dañoo jàpp ne nun noo ko moom bu yàqoo noo koy njëkk yëg bu defaroo noo koy njëkk yëg kon lépp loo xam ne da koy defar noo ngi ca guddi noo ngi ci bëccëg boo demee ci mbay mi nga xam ne mooy sunu wàll kenn mënuñu ca lu ko yokk rek la ñuy def guddeeg bëccëg te lu nu ca wax ñu def leneen noonu leneen noonu moo tax ba ba ni ko gouverneur dama doon keroog doañ sa nee noonu buñ am bu ngeen néewoon doole sax nu wut Faal boole leen ak ñoom ñu taxaw leen ci liggéey bi ba économie réew yàqu kon nun duñ duñ duñ te àndunoo koy mel ni Sénégal soxla wuñ ko nag Sëñ Tuubaa moo yaatu fu ne ma nga fa fu ne fu nga ma fa fu ne ay nita ma fa boo demee Gambie am nañ fa ci daayira yoo xam ne kenn xamul nuñ toll jamono yi nga xam ne seen xaalis dafa baaxatoon dañ daal di ñëw di wax ni dañoo bëggoon ginnaaw xaalis bu baaxut ñu di ko wecc ku ceeb wala suukar wala leneen booba daanan ñaan waaye buñ mësaan ñaan lu jaadu rek la ñaan dañ leen di wax ne leen yéen nu gën a xam fraude yéen gën a xam lu nit di jariñoo kon lu ci ñëw rek bu ngeen yaakaar ne dañ koy jariñoo bu ngeen ko nee ngeen dimbali nu bàyyi waaye bu dee marchandise nag moom sunu yoon nekk ci binduñ ñaanuñ waxuñ fen kon loolu rek laay yeesalaat xam ne foofu rek la nekk leneen lu ci amit nag ndax adduna moom dafay dox te léeg-léeg dara bett la waaye lu ci amit ni ngeen ko ni ngeen nu ko wax noonu rek lañ koy defee danañ ñëw ba ci seen i ñu wax leen ko bu ngeen defee xayru ngeen defut xayru moom lépp lañ yemale lépp luy defar daal nu nongi ci guddi nongi ci bëccëg kon loolu rek laa amoon li mooy dolli ci doan service yi ci des moom awma lu ma ci wax ndax seen seen seen yéene rafet na seen taxawaay rafet na am na ci ñoo xam ne àggaguñ ci seen liggéey waaye ragal nañ ni niñ ko waxee noonu rek lañu koy defee wàllu santé itam niñ wax euh, moom it noonu koy rafetlu xëy na liñ laajoon lépp ci ay garab amuñ ko waaye li ñu wolof di wax wañ ci benn lay tàmbalee bis bis dana ñëw mu àgg fan ko bëgg waaye xeebuñ nag liñ ñu jox wax dëgg yàlla xeeb xeebuñ ko naaw nañ ko noo ngi sant di leen ci gërëm te ni nga ko waxee rek ni nga ko médecin chef bi waxee góor góorgóorlu ba saytu ko ba ñett yi tax ñu laaj ko ñu def ko ci loolu mooy li ci njëkk mooy faj ci ñi nga xam ne dañuy ñëw ci màggal gi bu desee ñu jox ci daara maam jaara ji nga xam ne juróom fukki gone yi jigéen ña nga fa di internet ba ci des ñu jox ko dispensaire dëkk bi ñu di ci faj loolu bu ñu ko saytoo fukki mel ak ñaar ñaar yi ñu wax buñ ko defee nañ ko war a defee jaar ko fañ ko war a jaar te moom lañ wax léegi yaakaar naa boobaa liñ ci bëgg lépp incha allah danañ ko danañ ci danañ ko am di rafetlu it personnel bi ñëw euh, ambulance yi ñu wax lépp noo ngi koy noo ngi koy rafetlu euh, assaini assainissement it noonu noo ngi noo ngi rafetlu ñu ci def boo demee kër sëñ bu la ko wër lépp def nañ ko ay def def nañ def nañ ko ña ngi koy defar ak defar ba sa àggagut xam nañ ni lañ mënoon mënatuñ ko ne mu njëkk daa nañ fi indi lu ëpp lool ci ci ci ci cabine mobile yi daanañ fi ëpp lool ci ci oto yi waaye ni ko gouverneur waxee rek loo gis lu ne dañ koy organiser loo organiser rek ñaare loo ca néew néew doole rek la nga bëgg da ko am kon bu oto yi tey lay ñëw ñu yokk bis yi liggéey bi ñu yokk rotation yaakaar naa ni boobaa lu ca manqué danañ ko mën a motti hydraulique ci lay ñu moom noom ñoom suñ njàqare yëpp ci hydraulique la nekk ko bañ jàppee màggal gi boobu fekk na dëkk bi daanaka ndox amu fi keroog maa ngi la koy wax ci CRD bi ne la Porokhane moom ak caare na la ndox amu fa ndax booba ñetti forage fi am benn bi amul château benn bi li muy génn ci ndox doyut benn ba château d'eau ba dafa dafa dafa dafa day seen nga xam ne benn bu ci jag rek amul loolu nag boo amee ci dëkk ña fa nekk danañ jaaxle buñ nee nag àdduna jëpp danañ fa daje nag xaw ni ñuy def waaye nag ndimbalul yàlla moom bu rek jaam ne yàlla rek moo am solo yàlla rek mën a dimbale yàlla rek a mat a moom rek a mat ni mu ko waxee ak seen taxawaay seen pas-pas seen yéene seen xalaat yu rafet yéen ñëpp ngeen ànd ci ba alhamdulilah tey ji yaakaar naa wàll yëpp suñ xel dal na ci waaye ndox mooy ci raw sëriñ bi wax na ko léegi kon nag noo ngi rafet njort ci ne forage bi nga xam ne PDC def na ko fi muy ñaareelu forage am maa ngi koy fàttali ñaareelu forage am la ak pompe yi nga xam ne wax nga ne léegi ñaar yi bees la yoo xam ne eh, danañ nu ko yónnee ak li nga xam ne CNO def na ko fi ak ak COFOR yëpp bu dajee yaakaar naa ne daaw eh, ndox kenn jàmbatu ko woon te pexe yi ñu am ren ji amun ko woon daaw kon nag euh, rafet nañ ci njort bu baax yaakaar ne rek defe naa incha allah bu ko yàlla àggalee ci ni ñu ko tëralee yàlla mën noo dimbali te ndox mooy lépp waxtu bu ne dama koy wax courant bi bu ko it ngelaw laa ngi fi. kër gaa ngi fi waaye ndox nag bu ko amul fu ñu jëm waxuma la sax jullit waaye doomu aadama doomu aadama bu amul ndox booy juddoo ndox ngay soxla boo dee ndox ngay soxla booy dund ndox ngay soxla boo ko amul nooy def kon ndox mooy lépp kon ku yàlla dimbali. ba amatoo jaaxle ci ndox war ngaa sant yàlla bu baax sant itam ña nga xam ne ñooy sabab ba ñoom la ko yàlla jaarale kon wàll googu nu koy rafetlu bu baax genn wàll ci des itam mooy euh, Ageroute moom it bari woon nañ ci ay jaaxle lool damay tooñ sama mbokkum séréer mi naan ko yow toujours sa wax day njëkk a naqare waaye day mujj neex <laughs> euh, jaaxle woon nañ ci lool ci bare bari jaaxle woon nañ ci yoon wi ak tolluwaay yi nga xam ni fi la fi la réew mi toll surtout nag ñetti kilomètres yi nga xam dañ ko def rang-rang te muy romb barab yoo xam ni bi màggal ga ay kilifa dañ fay ne ni ni ko gouverneur waxee léegi bi ñu koy visité gis nga ko benn benn yoon mi ngi jaar ci résidence des hôtes jaar fi ñuy defee cérémonie officielle benn ba ma nga jaar ci kanam kër sëñ bi ak ay rakkam yooyu tey bu ñu ko bu ñu ci defutoon pexe mi ñu ci def directeur général bi ñëw fi ànd ak Diouf ñu xalaat ci xalaat bu rafet bi ñu ci am ba léegi si ñu di ko ñuural kon jaaxle gu ci lañ ne keroog sax bi directeur général bi ñëw dama daal ni ñuy def mooy fekkee ni daal mu amoo ci menn pexe mu ñu ko ñuulal li damay wax sëñ bi ñu fomm mag <laughs> kon nag wax dëgg yàlla nag <laughs> <laughs> kon nag alhamdulilah wet googu itam noo ngi ci wet yi ci des itam nag accès guñ ci ay ay communication noo ngi ñaan rek Sonatel mu góor góorgóorlu xam naa jamono yi moom ay jafe-jafe bari na waaye xëy na eh, kii kii bi la xëy na rek eh, liggéeyu jaxasoo yi la te ñoom rek nekkuñ fi waaye nag ñoo ngi ñoo ngi sàkku daal ñu gën a góorgóorlu surtout ba li ñu leen ñaanoon ñu def ko mooy ADSL bi dem ca lycée ba àgg ci dëkk bépp ndax li dëkk boo xam ne ñi dañoo am ADSL yi ñu amuñ ko wax dëgg yàlla kenn xamul lu mu doon te at yëpp ñoo ngi leen ko topp waaye lu dul noonu nag wax dëgg yàlla ñoo ngi rafetlu seen seen taxawaay ak seen yéene yaakaar nañ rek nañu daan liggéey ak ni ñu liggéey dinañ ko defee noonu wàllu transport bi it lu am solo la dëgg yàlla kiiraange nit ñi moom mooy lépp waaw màggal goo xam ne màggal lu mu neex neex neex neex bu amee benn accident ñu ñàkk ci benn bakkan rek musiba mu rëy la te gis ngeen at yi fi am yi fi yi fi jàll accident yu garaaw am nañ yoo xam ne yi euh, mën nañ cee taxaw mën naa taxaw bu baax kon noo ngi rafetlu transporteur yi ak ñi nga xam ne ñoo yor prévention bi seen taxawaay fas yéene ànd ak ñoom nag taxaw temm ba ni ñu ko bëggee rek ñu amee ko ni dogalu bu yàlla moom jàmm mënu ci dara waaye jàmm mën naa sabab lu yàlla fekk ko ci kon bu ñu sababloo rek lu yàlla mun nu jàpp rek li ci des nag xëy na mooy euh, courant bi euh, courant bi moom am naa ci xëy na dama ci dara nag nit moom lu mu xamul dara euh, mën na caa tiit mën na caa jàq mën na caa jaaxle ndax lii chef d'agence bi wax léegi wax ne day mel ne auto boo xam ne amul pënu secours moom mooy ci am euh, oto bu amul pënu secours nag ma lu ci di xam waaye man xaw xawma xawma xawma déli la xawma du déli waaye moom euh, ki ki dugg ci oto bi moom bu ko wóoree ne oto bi mu dugg amul secours dana jaale kon nag euh, coupe bi di gis ngeen ko booba tey mi ngi am leeral na léegi li tax waaye taxul man sama sama xel daal dal ci ndax nim nim leeral la ni jafe-jafe ñu ci am waaye nag xëy na moom biñ moom ak bu ànd yàlla ak seen yéene ak pas yàlla mën naa def ñu màggal ci jàmm ci ak ak ñoom wax dëgg yàlla at yi weesu moom amuñ leen lu ñu leen jàmbatal daaw sax defe naa dimbali nañ ci leneen loo xam ne du waaye nag lu ñu mën a defal rek courant bi moo nu yitteel moom lañ seq ak ñoom moom lañ séentu ci ñoom kon nag lu ñu mën a def rek na jëm foofu te luñ mënul dimbalee rek ba gouverneur wax na ko délestage am waaye boo boo ordre délestage bu amee te amoo courant it du am benn njëriñ kon nit ñi góor nañu dimbali daal ba ñu gën a mën ci courant bi bañ di couper daal ñu ñu dimbali tey courant bi moo ndox mi ndox mu ñu ñu mënoon wax léegi gis ngeen forage yi ñu dem am nay groupe waaye groupe yu màggat lay am yi am na am na joo xam ne sax amu amu xalaat leen nag nii nii mel mu continuer bañ àgg ci màggal gi waxuma la sa tàngaay waaye ndox mi rek day daal di jafe-jafe kon nag ñoom yërëm naa suñ bopp waaye yërëm naa leen faaw ñu sonn faaw ñu gën a góorgóorlu faaw ñu gën a takk xam ne kat at mu nekk nattu danaa daal kenn ci ci service yi waaye ñoom ren ji wutul na seen seen nattu lay doon mbir moom boo nee rek am nañ ci jafe-jafe te te waxoo wa waxoo xalaat boo xam ne ki ki ngay waxal xam na ci dara day daal di jaaxle kon nag noonu ñaan dañu gën a góorgóorlu bu àndeeg ña ndimbalul yàlla ak ñaanuk sëriñ bi ak barke borom bi bi yàlla mën nañoo mën nañoo dimbali kon daal gouverneur ci gàttal euh, xalaat yu gàtt yooyu laa amoon bu fekkoon ne sax jamono ji mën na ko gën naa yaatu kon waa commission yi ndax ni ni ngeen ko xamee comité d'organisation dafa am lu ma juróom-ñeenti commission service bu ne am na fi commission te commission bu ne président mu ngi fi am na xalaat waaye nag ginnaaw liggéey bi nii la demee te ni nga ko defalee nu nu nu baax la ndax gàttal nga ko te ñëpp xam nañ ku ku nañ li am ak li amagut li ñu li ñu war ak li ñu war agut ak xalaat xalaat yi ñu war a tëral ba loola am loolu doy na sëkk nag ci waxtaan kon nag nga nag mooy jégal ci guddal bi la ca des rek moo di xanaa ni ñu daan def moo di ñaan ñi nga xam ne ñu ngi ñëw ñu sàmmonte ak plan circulation bi nga xam ne gendarmerie da koy def sàmmonte it ak nit ñi nga xam ne dañoo nekk réew mi di ay gendarme ak policiers ne ci kaw yoon ak biir dëkk yi ngir di leen teg ci yoonu jàmm ñu góor góor lu sàmmonte ak loolu lañ leen di wax bu baax te xam ne amu ci kenn koo xam ne da wax loo xam ne njëriñam la lu la musal rek la lay wax kon loolu nañ sàmmonte ak lool oto yi def ndànk balaa kenn ñëw defar otom xam ne ay bakkan la yëpp te responsabilité bu rëy rëy rëy la kuy ñëwit nga def ndànk xam ne moomoo réew mi moomoo oto yaag ñëpp ci yem da ngay da ngay te ku fi ñëwit jàmm nga fi war a wut ak xeewal jàmm ak xeewal nag boo ko da ngay teey da ngay dal te ànd ak sago boo defee boo boo bu la yàlla dimbalee la ngay wut da nga ko am kon ñaan ñëpp barab bii lim laaj ñu jox ko ko ndax niñ koy waxee barab bu nekk ak lam laaj boo demee ci marché bi danga nga gis lam laaj ña ca nekk boo leen gisee xam ne ci marché lañ ne làmb ja noonu football ba noonu fowukaay ba noonu fii nag barabu yàlla la yàlla rek lañ fi wut ki fi ne yàlla rek la doon wut ba yàlla may ko may may ko li mu ko may kon ku fi ñëw ngir yàlla dafay am noo mel waxtu bu ne dama koy wax am am am ak gouverneur sol sa slip wala sol sa lu bon kenn du la bàyyi nga dugg fa buur bu toll la yàlla bind gouverneur bind moo bind ñëpp nag nga ne ci moom nga jëm sol lu la neex mel lu la neex yaa ngay nax sa bopp kon nag ñun ñëpp góor góorlu ci wàll yëpp barab bi lim laaj nu jox ko ko ci tal ak dee teey ak yar ak teggin ci oto yi ak dox bi ak ñëw gi ak barab bi siyaare fi ñu la ne booy siyaare fii ngay jaar nga jaar fa booy génn fii ngay fi ngay génn nga génn fa moo xam kilifa nga moo xam doo kilifa bu ñëpp defee loolu kenn ku ne bàyyee sa xel sa morom te xam ne la ngay wut kat mën ngaa dem ba am ko sa morom ña xañ la ko ndax euh, boo demee ba am li nga bëgg tooñ sa morom tooñ koo xam ne yàlla jàpp na ko bu ëllëgi si biir loo amoon ci lu baax da koy fayee kooku te loola ku ko am fulla ku ne war nga koo daw kon nag loolu rek laa amoon ci gouverneur ci lu ma yokk ci wax ji waxi sëriñ bi moom moo ëpp doole. baatam moo gën a kawe moo ëpp solo moo ëpp barke te sant na leen gërëm na leen ñaanal na leen ànd koog ñun ñi nga xam ne comité d'organisation ñi fi teew ñëpp ak ñi fi teew ñi bokk ci liggéey bi ak ñi ci ñi ci bokkul ngeen xam ne daal ni ma leen ko waxee nun dañ fee nekk nekkal leen fi ngeen ñëwee dinu dimbali nu wax leen liñ ko bëgg ànd koog yéen bu ko defee mbooloo mi lañ bëgg ñu am ko kon nag noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp bàyyiwuñ kenn di ñaan yàlla mi nga xam ne dara tëwu ko <clears throat> te li ne moo ko fi def yàlla fayal nu leen kenn ku nekk ci yéen lam nekk di ci yëngu yàlla na ko yàlla barkeel yàlla defal ko ci ndam yàlla musal leen te suñ réew mi nga xam ne amul loolu moom bu baaxee moom lan am bu baaxul moom lan am bu amee jàmm moom lan am bu amul jàmm moom lan am yàlla dimbaleen ba jàmm sax leen xamoon démb ak bërki démb di ko gis di ko dund ci jàmm ak xéewal yàlla yàlla na ko fi yàlla saxal yàlla boole nu yiw bi nga xam ne moom la fi moom fi dajale ñëpp ba luñ ci am yéen ñi nga xam ne da ko bokk ak noonu ñaari yoon ngeen ëpp leenu ci noo ngi sant ñëpp di gërëm ñëpp te di jéggulu ñëpp ci guddaayo wax ji barab bee ko laaj ak itam ginnaaw noo seq liggéey bi kenn ku ne lan na ci yow war nga koo war sa morom war na koo xam ndax ëllëg si biir mooy tax ànd bi neex mooy tax ànd bi jub àgg fañ ko bëgg bëgg àggal wasalaamaaleykum wa rahmatullahi wa barakaatu.